yenn kaay yi ak la ñu xëyee Cheikh bu Ngoné lañ ciy àndal saa su ne l' observateur la ñuy ibbee mu mel ne Ousmane Sonko la ñu xëyee. Ousmane Sonko la ñu xëyee moom Elimane jëruñ ji ci kàddu yi nga xam ne daal dina koy yëkkati ca Grand Théâtre bëri na itam ci ñoo xamante ni daal nañu càmbar lu ni mel ku ci nekk itam. ak euh, sa gis-gis ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na euh, jëm ci wàllu euh, politique wàllu communication ak itam psychologue ñoom ñëpp itam daal na ñuy addu ci doxalin bi nga xam ne moom Ousmane Sonko daal dina koy doxalee bu ñu sukkandikoo ci leneen koo xamante ni itam daal nay àddu ci lu soxal réew bu Sénégal bu baax a baax bokk na ci docteur Mohamed Dieye expert fiscal agréé la mu xam ne moom moo di nag bu fekkee yokkuñu li nga xam ne moom moo di assiette. fiscale bi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, fay daañu rekk ami jafe-jafe euh, ci yenn ci ay avantages trois points de suspension leneen ci loo xamante nii euh, daal na ko ci toftal mënees koo lire ci li nga xam ne moom moo di l'observateur l'observateur wax itam ci tentative de meurtre fa nga xam ne nag moom moo di ca cité Djily mbay kenn koo xamante ni ñu ngi ko doon bëgg faat foofe benn soxna bu doon jaay boppam ak itam benn client am waaye jàppal ne lu toll ci fukk ak juróom-benn ci ay jam-jam yoo xamante ni jëm na ca soxna soosee keneen koo xamante ni moom dañu ko mujj euh, faat ca diwaan euh, bu euh, fa nga xam ne moom moo di Mbodiène dañ koo lakk ba nuppi mu daal di faatu soxna faat yi jàppal ne nag ki nga xam ne moom la ñu njort ne moom moo def jëf ju ni mel jot nañu ko teg loxo ñu ngi wax itam li nga xam ne moom moo di jakartamaan boobee nag naka lañu ko piégé moom ndaw Sile ñu àdd addu ci li nga xam ne moom moo di wàllu caada ak itam lenn ci loo xamante ni ñu koy nemmeeku euh, fii ci réew bu Sénégal coon 2 Youssou 2 ak ñeneen ci ñoo xamante nii ñu ngi woy di toppandoo bu baax a baax yenn ci ay euh, musiciens ndax Wally de yi nga xam ne euh, jamono yi nag mi ngi woy di def ay vidéo yu doy waar ci réseau sociaux yi ñu addu ci lu soxal wàllu enquête woo xamante ni suñu ay naataango yu l'observateur def nañu ko ci ñuy dippee ay interprète daanaka Sénégal lim néew na ci réew bu Sénégal waaye itam bëri na ci ñoo xamante ni euh, soxla nañu bu baax a baax langage des signes euh, faat yi bu ñuy seetaan télé sax ay ndaw wala boog ay doomi Sénégal yoo xamante ni dañuy soxla lu ni mel te duñ ca mën a jote bu baax a baax ndax li mu interprète yi nga xam ne dafa néew euh, ci réew mi ñu utali beneen ab yéenekaay yi mooy enquête enquête dikkaat bu baax a baax diggante Ousmane Sonko ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci presse sénégalaise bi jàppal ne bu doon sëy mënees naa àdduna euh, tas na ndax kàddu yi nga xam ne daal dina koy yëkkati jëmale ci ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo di taskatu xibaar yi wala boo këru tasu xibaar yi faat yi. aywa ñu ci Libé. Libération dikkaat ba tey ca diwaan bu Thiès ak loo ko wër jàppal itam ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu wàllu sinébar bi ak yeneen ñu xeetoo ay sàmbaaboo yoo xamante ni jàpp nañu ci ñoom lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn euh, ci ay kilogramme euh, diggante euh, Thiès ak itam fa nga xam ne moom moo di ca Kaolack programme wi la modernisation li nga xam ne moom moo di daara yi POMOD ak itam gestion atum 2019 mm. atum 2020 loolu lépp mu mel itam libération dikk na ci daal di ci tënk lu toll ci ñeenti poñ daal ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ñu wax ci daanee beneen lépp yéen kaay. muy Walf Quotidien. Walf Quotidien euh, prise de parole en public maanaam jël kàddu ci ab mbooloo lenn ci loo xamante ni itam moom Ousmane Sonko da koy doxalee mu mel ni page 3 euh, bu li nga xam ne moom moo di Walf Quotidien moom moo ko daal di euh, xaatim beneen page waxtaanee na. dund gi cher yi nga xam ne nag moom la ñu nemmeeku fii ci réew bu Sénégal ak itam aji jëfandikoo gi li ñuy xaar ci gouvernement bu Sénégal loolu lépp daal dañ koy tënk ci li nga xam ne moom moo di Walf Quotidien beneen ab yéen kaay bu ñuy àddu. nuyu bés bi le jour. bés na ci ñeneen ñoo xamante ni joxe nañ seen xalaat. ci kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko daal dina koy biral ku ci mel ni ki nga xam ne moom moo di Birahim bu euh, Forum euh, Civil la mu xam ne euh, moom moo di nag du ñu nangu benn yoon kenn koo xamante ni am na ci looy doxalee ngi rek daal di tas li nga xam ne moom moo di presse sénégalaise Eliman Kane suñu gan démb bu lig Lex Africa moom itam am na kàddu yoo xamante ni daal dina ko yëkkati ba sax ki nga xam ne moom moo di Anta Babacar Ngom euh, position bu Sénégal jëm ci Israël jàppal ne pression xamante ni daal nañ koy teg ci kaw euh, njiit bu réew bu Sénégal moom président Bassirou Diomaye Faye waxtaane nañu sax ambassade bu Israël yi nga xam ne nag moom moo nekk ci Dakar te ñu jàpp ne dañ ko fay war a jëlee page 3 jàpp 8 bu bés bi le jour. moom moo ci dikkaat bu baax a baax faat yi aywa ñu dem ci Vox Pop. Ousmane Sonko le retour de baton la rek daal di euh, dippee euh, lu ni euh, mel leneen ci loo xamante ni daal di nañ koy yëkkati waaye jàppale ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba bu Pastef moom sax moo nar a nekk suñu gan la mu xam ne moom moo di nag mu ne suñoo jiital nit ba nuppi daal di koy faqatal ndax bëri na ci ñoo xamante ni ñu ngi teg pression wala boog di bàyyi xel bu baax a baax Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom moo di président Bassirou Diomaye Faye collectivité territoriale yi fii ci bu Sénégal dañ fas yéene banque seen ay loxo ci diirug cent vingt heures yoo xamante ni nag euh, ay bés wu rek daañu ko rek dàbbali seen ak nekkin la ñu bëgg mu gën a ñoŋ fii ci réew mi. source a lu mu xëyee. Euh, source a ca pencum ndaw yi réew ma ak ñeent ñoo xamante ni itam taxaw nañu temb ne euh, duñu rek bokk ci commission ad wi ñeel li nga xam ne nag moom moo di contrôle ak itam vérification yu titre ak itam occupation jëm ci li nga xam ne moom moo di domaine public maritime page cinq bu source a moom moo xaatim lu aywa euh, stade. stade la ñuy amal défense centrale yu gayndey Sénégal yi Abdoulaye Seck ak itam anam wa nga xam ne noonee lay doxalee cawarte ga mu àndal dëgër gi nga xam ne itam gaynde gi lee daal dina koy dëgër mu mel ne itam euh, stade ci loolee la rek daal di euh, dikk Soxna Faty ñu dem jeexale ak sunu lamb. ñu jeexalee ak sunu lamb sunu dikk na ci euh, euh, Modou euh, Dia wi nga xam ne itam moom moo jël derbi Dakar waa double moteur mi nga xam ne itam dañu ko rek daal di dépiécé nànk-nànk ci diirug ñaari simili ak lu ko toftal ñu waxtaanee baay Ndiaye wi nga xam ne itam dikkaat na bégal amateur yi bu baax a baax fanweeri fan ci weeru join la ñu nemmeeku lu ni mel Ama Baldé ak itam ki nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux Ada Fass ak guy gi lu ni mel. mënees nañu koo xaar ca arène nationale pacc wu njëkk wi ñeel li yéen kaay yi euh, xëy fësal ñaareelu pàcc wi dañu dikkaat gën ko faram-fàccee benn par benn saa sëgëm euh, waxtu wi dañoo xaw a dab Fati ci kanam tuuti ma fekk si la. ci jotaay wi laataa loolu am na lu ñuy waxtaanee. waaw li ñuy waxtaanee mooy. Euh, l' actualité politique ba tey. moxtaara ñu dem ci ban journal. journal yaakaar naa boo dem baax na de. mu dem l' observateur. dama l' observateur voilà. mu ngi noonu muy euh, euh, euh, Sonko examen dans l'état d'esprit noonu la ko tuddee